assalamualaikum dende decor Events mo len di présenter sen liguey bu muccu ay bi tay ñu ko def fi euh ci ben société bu ñaan petrosen euh ak dende décoration dal tout est possible euh, waaw den day décor gis ngeen ko lepp lu ngeen soxla rek walu cérémonie ngeen ñëwee fi dal все трекінь. oke Окей. waaw ñoom couleur rouge bleu waaw def events 77 642 04 76 642 04 30 engagé chaque jour à vous donner le City.